dañuy tàmbalee ci jëm ca kaw waa juróomeel bi sax waa juróomeel bi dañuy tàmbalee jëm ci kaw waa juróomeel bi góor la wala jigéen waa juróomeel bi góor la bàyyi koo ci këru diine guñ xam mm-hmm. ci réew mi mm-hmm. ci alquran mm-hmm. muy Cheikh Ibrahima Seck bàyyi koo cene ba macha allah takbir sëñ Madické Seck xanaa kontaan na juróomeel bi cene ba la jógee këru diine ju mag sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck mi fi jóge bu yàggul daanaka rek alxuraan ju doon dox la waaw kon Thiénaba ndamu alxuraan dem fa lu jaadu la am 78 points ci 100 yi ñu doon laaj am na 78 points ci téeméer yi ñu doon laaj muy juróom-ñaar fukki poñ ak juróom-ñett ci téeméer yi ñu doon laaj te bii li ko taxoon a jafe mooy tafsir bi ay mufassir yoo xam ne hmm. ñoo doon laaj di bett xale bi di ko laaj ni mu ñàkk a xamee fu muy taree noonu la ñàkkoon a xamee ku muy tafsiré ah loolu doy na waar ah eh, loolu moom ku ci am juróom fukki poñ sax jàng nu mu tudd eh, kon Serigne Abdou Aziz moo ñu koy joxal kadoom ah Cheikh Ibrahima Seck Cheikh Ibrahima Seck sëñ Abdou Aziz moom moo koy jox sëñ Abdou Aziz na jege si am na trois cent mille francs am na cent mille francs moom cinquième sëñ Aziz Niang di mag ci sëñ Abdou Khadir Jili Niang mi président comité bi nga xam ni mooy grand prix Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñu ngi ziar waa kër Niang yëpp sëñ Khadim Niang mi fi jóge léegi ziar ñoom sëñ Sigi ci fi moom it ñu ngi leen di ziar waa kër sëñ Modaw Balla Niang ñu ngi leen di ziar bu baax a baax kon mi noonu sëñ Abdoul Aziz Niang mi ngi jox nga xam ni bu cene ba moo jël cinquième ci ñi nga xam ni ñooy kaang fóore yi euh, sëñ Xaadi kan mooy quatrième sëñ Basiru Mbay yow waroo sole fii euh, sëñ Xaadi waaw jërëjëf sëñ Abdoul kan moo jël quatrième ci kankoore yi quatrième kankoore yi moom it ba tey Mouhamadou Moustapha Ndaw bàyyi ko Kaolack am na 84 points moom it na 300000 fukki poñ ak ñeent ci téeméer yu ñu doon laaj jàmbaar la ñoom dañ leen di laaj ci li nga xam ne laaj nañ ko ñi leen jiitu waaye laajaan leen loo xam ne nag moom muy firi bi muy tafsir bi loolu moom laajul ñu ko ñu jiitu kon ñoom ñi moo tax ñu leen di tuddee Kaang Fodé Serigne Diogou Mbacke Samb moo koy jox mu massilu jamaatu Ibadu moo ñu koy joxal euh, neexalam sëñ Diogou Mbacke sàmb bu jamaatu Ibadu Rahman ñu ngi ñaan mu jege si joxal na këpp moom mel na ni mel na nu bu fekkee dafa génn ana ana sëñ maam Cheikh bu AIS moom it dem na association islamique yi docteur Khadim Silla docteur Khadim Silla moom ñoo ñoo ñëpp mën na leen teewal ndax taxawaayam bu rafet ci diine ji di ñaw saa su nekk docteur boo xam ni am naa privilège yu fekke keroog bi muy présenter thèse de doctorat à l'université Paris 4 devant trois professeurs agréés ñëpp di ay tubaab ñu koy laaj ci français mu leen di tontu ci français kenn nettalu ma ko mu génn ak mention très honorable man maa ko fekke ca Paris université Paris moom nag docteur la jox na prix bi ki nga xam ni moom mooy euh, quatrième bi léegi defal nañ ko docteur Khadim Diakhaté sëñ Khadim nee na yokk na ci docteur Khadim Diakhaté <laughs>

waaw am na ci nag ah. danaa ci bégal am na ci alhamdulilah kon nag ayca ñetteel bi Mouhamadul Bachir Sambu jóge fan ci Mahad al Bachiriya ca Ndar am na 94 points macha allah am na 2 millions de francs CFA macha allah Mouhamadou Bachir Samb bàyyi koo ca Ndar bàyyi koo ca Ndar Ndar la ma waxoon sànq rek bu fa kaang Fodé jógee du jaaxal kenn ndax seen digganteeg alxuraanul karim xam naa ni Mohamed Bachir euh, kan kontaan na waaw kontaan na waaw Mohamed Bachir kan moom it bokk na ci ñi jaayante ci saaru alxuraan yi kon kan moo koy jox prime. sëñ maam Thierno Niang. bu kër Niang. sëñ maam Thierno Niang suñu sëriñ suñu wëllëre suñu xarit moom mooy ñëw di ko jox prime kii nga xam ni mooy Mouhamadou Bachir Samb. waaw yaakaar naa ni jombul moom lañ ko tuddee sama xel a ngi dem ci daara sëñ Bachirou Samb ca sanc ba kon nag ma ngoog nee na moom la nee na mooy maamam faf waaw kooku alxuraan ju yàgg la daara sëñ Bachir Samb sa sanc ba daara sëñ Moxsin Diop ca sanc ba daara sëñ Ahmed Tidiane Ñang ca sanc sëñ Tayru Jéy ca Gendar Moxsin Diop ca Sundoone waaw daara sëñ Malick Diop ca Sundoone waaye daara sëñ Mor Diop ca Tenjigéen waaye daara sëñ Modou Mamoun Ndiaye surtout sëñ Amadou Ndiaye maa bi ca Looda fa laa jànge moom nag am na 94 points waaw 1 million 500 mille wala 2 million Mouhamadul Bachir Ndaw waaw 2 ah, millions. la am. 2 millions Mouhamad million Samb 2 millions lay yóbbaale ndar sëñ maam Thierno Niang moo ko jox. sëñ Jili nag sëñ Jili nag wane na ne ndar ndar la nag waaw waaw waaw ubul watani minal imaani ah, kay kon ay ca eh, kon ki jël deuxième ci kaang yi Moustapha Niang bàyyi koo mbuur ah, loolu nag moom mhm. daa war bokk ci kéemaan yi mhm. ndax mbuur yàggul mbuur yàggul te mbuur li mbuur barewul ay aajurul xuraan kon nag kii am na mérite ah, Mouhamadou Moustapha sargal bu baax ndax fa mu jóge daara jooju sëñ bi ñu sargal ko ndax mbuur ku fa liggéey lu mel noonu mag ngaa sargal bu baax a baax takbir bi yónnee a bii kan la kan. ma ma ndawal ma ma ma ci. moo dëgg ñaa am na nag ay prix ay prix de d'excellence yoo xam ni. Hmm? daan ka joxe. Ah, waaw maa koy joxe jubluwuñ ci rek lu dul soññu ak sant leen. balaa ñuy joxe premier prix bi sëñ Xaadim. Eh, Moustapha léegi sëñ Moustapha Niang ñaata lay yóbbaale Mbour. li jëkk mooy am na quatre-vingt-quinze points ci liñ doon laaj. yow mi doon wax Mbour. juróom-ñeent fukki poñ ak juróom ci téeméer yi ñu doon laaj. di yóbbu deux million cinq cent di yóbbu deux millions cinq cent mille takbir bu baax a baax sargal sëñ daaraam bu baax a baax itam ndax fa mu ko muy mbuur sëñ Modou Rokhaya Mbacke moo koy jox sëñ Modou Rokhaya Mbacke ñu ngi ñaan mu jege si moom moo jox Mouhamadou Moustapha Niane lii nga xam ne mooy liggéeyam ñu ngi sant sëñ daara yi nekk mbuur yëpp lii liggéey bu am solo la di sant ñoom sëñ Khadim Salek mboolem njaboot sëñ Tuubaa gi nga xam ne teer na la ay góor waaw yaakaar naa waaw et sëñ ji li moom gannaawam sëñ ji kay dafa dem wala dafa néew sëñ Modou Rokhaya Mbacké dafa dem kon sëñ Makhtar Diène waaw ah non kii prix bi kan lañ koy jox ki nga war a jox nekkul kan lañ koy jox. sëñ Maodo Roqe Mbacké moo doon jox kii prix. waaw te bu doon jox sëñ Maodo nekkul. waaw léegi eh dégg leen kii. waaw waaw waaw loolu la fekk loolu la fekk sëñ Xaali kan mooy jox euh, Cheikh Mamadou Moustapha mi prime waaw soxna soxna maam Awa Dem jàmbaar jooju nga doon tudd léegi soxna maam Awa Dem bés bu nekk jë mu jaar mbur mënoo dem Porokhane te jaaroo foofu waaw soxna soxna maam Awa dafa mel na waaye bu fi nekkul soxna maam Issa ngi nii soxna maam Issa waaw waaw soxna maam Issa Abdou Kafe soxna maam Issa Mbacke moom sëñ Modou Fatou Xaali moom sëñ Massamba sëñ Massamba mi nga xam ni moom la sëñ Touba wax ni xasida yi ñoo doon sàkku sëñ Massamba dinu yaatale loo xam ne taalibe yi daan ci mën a jote waaw lu bare ci liñ jot ci xasida yi ñoo sàkku sëñ Massamba gën ko woyefal ba ñun taalibe yi ñu mën ci jot kon nag soxna maam Issa ahlu café moo jox Mouhamadou Moustapha Niane ñu boole ci kaamil boole ci cadeau yi nga xam ne moo jóge ci ndey daara yi Mouhamadou Moussa Niang di yóbbaale deux millions cinq cent mille mbuur jërëjëf ah gars nag ñu war a yegg nag ci prix bi nag mooy dab dab dab dab dab waaw moom moom mooy kànfóore bi nga xam ne nag balaa ñu cay yegg dafa am ñaan yoo xam ne sëñ Saliou Dieng faw ñu yokk leen ci ñu nuy sargal dafa am ñaari jëm yoo xam ni nii ñu déggee concours bii wanees na leen a bu baax a baax ba buñ fi teewatee beneen yoon ñu bare roy leen ci seen jëf te ci jiitu mooy généralu Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni naka ñëpp sargal sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni bi ko sëñ Moustapha Diakhaté miy waxee dafa ni que li mu araf Touba daay gën ci saaru alxuraan vingt-huit saaru alxuraan daal di yëkkati huit millions quatre cent daal di koy tàmbale sëñ Abdourahmane ak ki mu àndal nanu ñëw ak Mouhamadou nanu ñëw teewal ñëw nangu cadeau de reconnaissance bi nga xam ni daal di jébbal sëñ Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ki kay jox mooy sëñ Moustapha Diakhaté xaadimul xadim takbir sëñ Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yàlla fi yàlla takbir takbir xam naa xam naa sëñ Abdou Doos bi ak sëñ Tani doon doon doon ñetti aaya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 woon lii rek doyoon na sëkk lii rek yow nga yóbbu di waxukaay bi daanu jar na ko nag jar na ko de kon ñaari kàddu yoo xam ni eh, sëñ Modou Kara yónnee woon na mbooloo mi ñu déglu sama doomu baay sëñ Mouhamadou Niang professeur bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu noo ngi leen di nuyu alxaid al amiri sultan al katib mouridiya Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu boole nu ak doomam Cheikh Abdoul Khoudous ak Cheikh Abdourahman mi nga xam ne moo doon tajwid léegi ngir ñu ñëw teewal ko ci bis bi nga xam ne dañoo jël alquran jox ko boroom mu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi ñu ko ko waxee rek mu jaayante ci ñaar fukki saar ak juróom-ñett muy uruufi Tuuba loolu dafay firndeel bëgg goo xamante ne bii moom bëgg na ko sëñ Tuuba ba tax na lu muy def sax daf koy askanale sëriñ bi mbaam ci dàkk bëggug sëriñ bi mbaam ko taqale ak Sëriñ Tuubaa alxuraan nag moom nañu xam ne alali sëñ Tuubaa la moo tax bi ñu ko yëkkatee jëmale ko ci Sëriñ Tuubaa moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu wax ne mu gëm ne kon loolu mooy ki ko war a defal Sëriñ tubaa kenn waru ko ca jiitu moo tax li mu ci joxe kenn joxewu ko ci muy ñaar fukki saar ak juróom-ñett kon nee na loolu def na ko liggéeyale ko sëñ tubaa ci alquranul karim waaye nag sante ko cheikh mamadul muntaka mi nga xam ne tey moo fi toog toogaayu cheikhul xadim ndax li mu gëm mooy lii ñuy wax alxadimiya dafa ñëw nekk une assemblée de fidèles boo xam ne dafay liggéeyal sëñ tubaa surtout nag ci aaxiru zaman gi ñu nekk te lii dafay dugg ci loolu kon nee na mu ngi leen di sant bu baax a baax di leen di ñaan lii ñu yàgg koo def ñu yàgg cee daje ak ngërëmal suñu ñu leen jox yéen ñëpp rendez-vous le 5 septembre bii ñu jëm këram Mermoz ngir li mu bëgg a wax ak jaam ñëw man ko jottali te weesuwul du génn mukk mbirum jërëjëfe Serigne Touba ak di ko liggéeyal fu mu toll kon nag ñu ngi leen di sant asalaamu ala maytabal huda wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi jërëjëf sëñ Modou Gana ji lool sëñ Moustapha Diakhaté mi da koo gaaral rek da koo wax rek mu ni ko danaa jël ñaar fukki saar ak juróom-ñett waa léegi nag ah des na beneen jàmbaar prix jaayante yii nga xam ni moom la ñu jox sëñ Ahmadou Kara Mbacké Noreyni dafa am beneen jàmbaarul islam joo xam ni jàmbaarul Cheikh Issa Diène borom Diendeng la gën jàmbaar joo xam ni wax naa ko sànq li mu def defal alxuraan fii ci daara ji mu am fii rekk ci tali bu bees doy na sëkk yokk ci néegu suñu borom boo xam ni mbooloo mu bare fay julli ajuma weeru koor wi ndongo yu nekk ca daaraam ñooy naafila kaamilu alxuraan bi ki may wax xam ngeen ko moom it ñu war ko jox prix d'excellence ci jaayante bi prix de reconnaissance muy Cheikh Makhtar Diène fukki saar la jëkk jël ci kaamil bu jëkk bi joxe 3 millions mu jëlaat juróomi saar ci ñaareelu kaamil bi muy 1 million 500 mille ñu boole leen muy 4 millions 500 Cheikh Makhtar Diène sëriñ Maam Daam Ñang di président commission bi nga xam ni ñooy communication ci biir liggéey bi moom moo koy jox prix bi euh, sëriñ Cheikh Makhtar Diène jàmbaaru lislaam ji nga xam ni saa su nekk rek lépp loo xam ni day taxawu daara saa su nekk ci lay nekk man bare na bare na daara yun ma xam te ñu ma gis te moom moo tax mooy toog ba si yàgg rek ni ma nangami ton a ngi fi sëñ Abdou Lahat bindal ma nangami daara ñu séddale leen ko yenn saa yi mu ni ma nangamu nangamu tonu meew a ngi fi seetal ma nangami daara ñu séddale leen ko yenn saa yi mu ni ma nangami tonu ndawal a ngi fi seetal ma nangami daara ñu séddale leen daara yi sax du leen xam danaan ma bindal daara yi nga xam rek ma séddale leen ko loolu miraaran moom mii Cheikh Makhtar Diène kon sëñ maam daam ña moom moo koy jox waaye mi ngi noonu reconnaissance ci taxawaayu Cheikh Makhtar Diène ci liggéey bi nga xam ni mooy grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jërëjëf. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم jërëjëf da nga yéex a ñëw nag waaye nag teew na moom ndax keroog ma nga woon ca jaayante ba ca ndakaaru keroog itam la jaayante jël saaram sañ ba Basirou Kane kon euh, mbokk yi ah la ma leen ñaanoon sànq dama leen koy ñaanaat de ñëpp def taxaw bi yoon nag moom ñëpp laa koy ñaan bi yoon moom ñoom Ahmed Saloum Dieng ak ñëpp laa koy ñaan xam naa ni sax am na ñoo xam ne toogaay bi yàgg na ci ñoom sëñ Mountakha Diattara maa ngi leen di jéggalu baax Eh, sañ Abdou Malick sëñ Khadim Silla ñëpp maa ngi leen di jégalu maa ngi leen di jégalu ji ñaan eh, sëñ eh, Abdou Khadim Mbacké sëñ Jili moom sëñ Saliou yegg si na jóg na moom taxaw bu yàgg moom it ñëpp war a jóg takbir allahu akbar takbir allahu akbar takbir allahu kan mooy Kanfoore bi waaw sëñ Jili tey Kanfoore yi ak kaan yi dañoo bari dama bëgg a jàll benn information jàmbaar yi des ci gannaaw matoon fukk juróom-ñeent àndoon ak fukk juróom yi ñuy fanweer ak ñeent ñoom ñooñu nga xam ne ñoo jotu te agsi bokk ci fukk juróom yi ñu jox lii kenn ku nekk am na cent mille francs ci poosam ñu door a àgg ci Kankouré bi incha allahu taala. ñaar fukki junne ci képp koo xam ne rek bokkoon nga ci concours bi ndax des na fukk juróom-ñeent yoo xam ni. yàlla wërsëgulu leen ñu bokk ci ñii ñu tànn waaye nag ay jàmbaar lañu ñooñu li ñuy wax prime de participation am nañu ñaar fukki junne yu ñuy yóbbaale jërë ngeen jëf bu déwénee ngeen ñëwul kiiwaar rek ndax ku bokkul ci fukk ak juróom yi rek am nga sañ-sañu bokk déwén incha allah. incha allahu eh, sëñ ji amaat na geneen kii man nag kaang fóore daa am fu ñu ko gënoon a miine mhm. waaye tey nag am na fu mu génne xam nga fu mu génne ca soxna ya ah e def leen nii na soxna yi tàllal seen loxo soxna yi tàllal leen seen loxo war ñu dégg seen kàddu waaye war ngeen tàllal seen loxo soxna yi am nañu ndam waaw sëñ Tuubaa naka jekk ay jigéenam du ni mukk bu newoon góor ñu ngi fàttaliku kaamilu kaamilu soxna soxna Maymunatul Soxra ba bégaloon sëñ tubaa ba ko Cheikh Sidiya di di wan kaamilu doomu jigéen ba waaye kaamilu soxna musli kaamilu soxna Maymunatu kaamilu soxna Fatija kaamilu kaamilu soxna ami cheikh doomu sëñ Tuubaa yëpp bind nañu kaamilu alxuraan kon aw ngeen ca yoon woowu jërë ngeen jëf jërëjëf waa kooku ñaata point la am jigéen ak ñi mu doon joganteeg yëpp ñaata point la am ba jiitu jongante ca tajwid ba jiitu jongante ca tafsir ba jàll soxna nafisatu buso soxna nafisatu buso amati na soxna nafisatu buso na jege si Gédé amati na ndam Kër Sëñ Mbàkke Buso amati na nu ndam waaye daaray alxuraanu Tuubaa yi am na nu ndam jàngalekatu alxuraan yi jàngalekatu xam-xam yi ñoom sëñ Muntaxa Jatara amati ngeen ndam soxna Nafisatu Buso ana ñoom sëñ Ablaat Buso yi fi teewoon sëñ bu Buso Cerno sëñ Ablaat Buso Maas laat bu Buso Mutalib ñoom waa Muxaddamatul Xidma soxna Nafisatu Buso ci daayira bi loog ah sëñ Abdoulaye Niang mii am na ndam ndax soxna na fi sa dugg sa jarbaatam la sëñ Abdoulaye Niang waaye moom ñaar mooy lan 97 sur 100 97 sur 100 juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci téeméer yu ñu doon laaj ñetti képp moo manqué mu am téeméer soxna na fi sa dugg so ma leen di xamal ni itam mi ngi liggéey ndax sànq bi muy tajwid fii nee naa leen bokk na ci ñi may faral di dalal ci jataayu xam-xam yi nga xam ni dana am ci télévision Futur Média bët ki démb rek ci waajtaayu màggal gi dalal nañ ko ci diggante euh, Serigne Touba ak waaw sëtu sëñ bu sa ilimaan la premier grand prix Cheikh Ahmadou Bamba jigéen jël ko muy soxna Nafisa soxna Nafisatu Buso juróomi million takbir takbir soxna Nafisatu Buso ah sëñ Abdoul Khadir sëñ jiili mu sëñ Saliou jox ko ko ah sëñ Jili sëñ Saliou bégaat na tey sëñ Saliou li mu daj ci daara sëñ Saliou mi nga xam ni xel koom rek bi mu amee léegi jébbal nañ ko lopp ñetti junne kaamil yoo xam ne xel koom lañ ko ji sëñ Saliou mi nga xam ni bi mu fiy jógee rek ndongo yi xel koom képp tolloo na ni ci fukki junne ñaar sëñ Saliou mi nga xam ni li mu liggéeyal sëñ Tuubaa ci alxuraan bul ko doon toog fii di ka wax du jeex bokk na ci rek sëñ Jili mii nga xam ne mooy président comité d'organisation ñoom sañ Maam Dam ñii tey jii bu buñ doon lim ñi jaar ci sëñ Saliou mbokk sëñ Moustapha Diakhaté mii moom sañ Cheikh Diakhaté sëñ Yéeri Diakhaté jàmbaar yi àndoon ak sañ Touba waaye sañ sëñ Jili jërëjëfati tey sa waajur wa bég na waaye sa maam ji itam bég na ndax mënee su koo defal lu raw li mënee su koo defal lu ko gënal lii rawatina ci bés bii nga xam ni ci la jëkkoon waaj ba naan xaratu yam na sa rabiya safar fii xidmati fii chahri dem ba ca gaaw ba ca toppaat daa deen xalatu yow ma sabti saaminil asar li xidmatil muxtaari fii chahri safar yàlla nañ ca yegg ak jàmm na ñëpp tàllal seen loxo global global bi nag ngeen xam nag comité d'organisation bi ak ñi jaayante woon ñaata lañ leen joxeel ci global budget bi budget yëpp nan la toll 27 millions 500 lu bokkul ak transport ñi jógee Mauritanie kon nag daanaka 28 millions muy ñaar millions ak juróom-ñett maanaam Touba daal di dugaat dépensé nañ ko ci prix yi waaye nag ngeen xam ni ñu jóge Burkina Faso nonga daal la ak ki mu àndal dañ koo dagal biyee ñoo koy indi logé ka ki jóge Mauritanie kazalika naka noonu nonga daara yëpp boobaak léegi ñoo leen jël en charge ak sëñ daara yi ah sëñ Fallou Bousso imam waaw ku baax sëñ Fallou Bousso imam ñu yàgg bokk Rawdu Rayaahin membre fondateur ci Rawdu Rayaahin sëñ Fallou Bousso Abdoul Moutalib jàmbaarul islam kon moom tey ji mbooleem Rawdu Rayaaxiin ci njiitu sëñ Ahmadou Badawi ñoom ñoo am ndam waaye mbooleem Muxaddamatul Xidma ñoo am ndam mbooleem Rabita bi nekk fii ci Touba ci njiitu sëñ Xaali Jaxate ñoo am ndam mboolem région de Diourbel ñoo am ndam waaye dama naan mboolem Sénégal ñoo am ndam ndax lan jongante alxuraan tajwid ak tafsir ñu ni jigéen a ko gañe jërëjëfati borom Touba jërëjëfati borom Touba jaaraama maam jaara jërëjëf. nañu woo sëñ Mouhamed Gaye sëñ Mouhamed Gaye ñu joxe ñu jóge Mauritanie ak Burkina ñoom it daan leen jox yóbbal ñu xam ne Touba gii ñu jëm kii ñu ñëw dëkku teraanga faaw daanu am lu ñu yóbbaale lu bokk la ba bu déwénee ku fa jógee sawar a ñëw bokk. waaw. salaamaaleykum wa rahmatullah. waa léegi nag sëñ Xaadi. caméraman yi ak photographe dañuy ñaan fukk ak juróom yi gañe yëpp fukk ak juróom yi yëpp ku nekk na jóg ak prime fukk ak yëpp ñëw fii def benn fam famille. dañoo bëgg balaa booba. jataay bi ni ko ubbee ak ayaat quraaniya ñu tëjee ko. jataay bi ni ñu ko ubbee woon ak ayaatul quraaniya ñu tëjewaat ko waaye fukk ak juróom yëpp nanu ñëw. nanu ñëw rang fii ñu jël leen nataal boo xam ne ñoom ñëpp koy bokk soxna Nafisatu mën ngeen taxaw ñoom ñëpp nanu ñëw. prix yëpp nañ leen ñëw soxna maam Diarra maam Bousso ñëw leen ñoo ñëpp ñëw Moustapha Niang ñëw leen da ñëpp ñëw ñëw leen def photo de famille waaw ñi ngi sant bu baax presse bi yëpp li ñu bëggoon sax mooy ñu indil nu kayit bi ñu lim leen muy télévision yi di rajo yi euh, sit internet yi journal yi ñëpp ñëw nañu te boobaak léegi bi ñu lancé xew-xew bi fii ci Daaru naan ba tey ñi ngi ànd ak ñun ñi ngi leen di sant di leen gërëm waaye sécurité bi ñu santaat bu baax sous préfet di ko yóbbante ci préfet mu jottali ko gouverneur mu jottali ko ministre de l'intérieur sunu mbokk taalibe Félix Antoine Abdoulaye Abdoulaye Dione sant ko ndax bu ci àndul woon sécurité bii ñu am fii du fi am muy police di gendarmerie di sapeur pompier ñëpp teew nañu teewaay bu rafet ñi ngi leen di sant di leen gërëm comité d'organisation bi sant nañu ñëpp ci turu sëñ Abdou Khadir sëñ Jili waaye ndongo daara itam sant nañu ñëpp ci turu sëñ Xaadi Jaxate mi taxawaay bi nga xam ni presse bi tudd naa leen léegi waaye dafa am ñoo xam ni jàmbaar lañu ca bunt ba ba fii ñoo sécurité officielle bu état bi ñoo ko ànd muy waa kër sëñ Amsatu Mbàkke moom sëñ Tuubaa Cheikh Abdoulaat muy waa Xudaam waa Xudaamul Xadim taxawaay bu rafet ñoom it la ñu taxaw ci concours bi ba ñuy ñëw ci kër gi ci Daarul Manaan amuñu benn jafe diiru daf jiiru bi ñu fi nekk itam amuñu fi benn jafe waaye santaat soxna maam Isa Mbàkke ci xéewalu café gi santaat sëñ Ahmadou Badawi ci ndox mi ñëpp ku fi maroon rek naan nga ba màndi ci ndox mi nga xam ne mooy aynu kon nag ñu teewlu sëñ Mouhamad Gaye waaw moom sëñ sëñ Mouhamad gay ay bégal nag soxna Nafisatu mi nga xam ni moo jël coupe bi teraanga gin koy mën a defal teraanga gi ci gën a rëy moo jàngal ko alxuraanul karim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 شركا فإن له معيشة ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياتنا ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون كم أهلكنا قبلهم القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم jërë ngeen jëf mbokk yi kon loolu moo doonoon cérémonie bi ci prix yi nga xam ni moo doon grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu ñu doon ko defee fii ci Daarul Touba. kon ñu jox euh, soxna Nafisatu Bousso ñu barkeelu rek ci kàddoom أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وبشر sadaqallahul jërëjëf soxna Nafisatou Bousso bi nga xam ni jël na premier ci concours international bi di leen sant leen jaajëfal bu baax di wax ni ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne mooy presse bi muy média bi nga xam ne teew nañ fii ci list bi ñu ma jox euh, TFM RFM Euh, ñu ngi ko doon def en direct Mourtada Tawfiq Alxadimiya Touba TV seen euh, seen voix Kër Ñang TV Màggal TV ak Saxum Touba Istiqaama TV ak yeneen chaîne yoo xam ne ñëw nañ te euh, jotuñu seen tur ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal yéen ñëpp di sant sécurité bi muy police ak ñi nga xam ni